ndax man bi ñuy ñëw ñu ngi fekk benn biis bi mu ngi ralenti booba fayagul booba ñu néew ñoo fi nekk sàppor ñëwagul. boobu bi biis bi boobu mu ngi ralenti. bu ñëwaat ñoom ñaar bi nga xam ne moo ju mel ni moo jugee woon Tamba euh, Dakar boobu mu ngi ralenti waaye nag euh, mention spéciale waa Sikilo Mohamed. Mhm. waa Sikilo euh, jàmbaar dëgg. kenn ku nekk ba nga déggee tell ji waxoo ko sa morom. Mhm. ñëpp dañoo daw ñëw ci bërëb di di di dimbale nit ñi di génn di dimbale nit ñi di génn ba ni sàppar ñëw euh, mbir mu ko mettee daal Mohamed man de du ma mag waaye maa ngi koy door a gis waaw metti na lool ndax ñi ci nekk man jàngat naa ne ñëpp woy daan doole la ndax boo xoolee seeni bagaas ay góor ak i jigéen takkaayu di liggéey ngir jaamu yàlla di liggéey ngir seen njaboot lii dab leen. daw na yaram sax gis naa ci benn xale boo xam ne xale bu ndaw boo xam ne nii xam naa dafa fettax génn ci biti hmm. ba ñu koy jël lañu yaayam nañu sama doom la indil leen ma ko ma gis ko balaa balaa may faatu hmm. Mohamed hmm. wallaahi lancim indil leen ma ko ma xool ko balaa may faatu seet yaa ngi ko naj boo xoolee oto bu ci nekk ci digg bi ba ci bopp bi nit ñaa ngi toog seen seet ñii faatu nañ ñee ngi yëngu te mënuñoo génn lu ko dawee yaram moo métti yàlla buñ ko gisati amiin waaw métti na lool waaw maa ngi ñaan président nag nu leen mën a jàppale na ko def mm. ndax ñiy wëy daan doole képp lañ mm. ay góor ak jigéen métti na moo métti benn bi benn bi ni ñu waxee Tamba la jógee woon ci gàttal rek benn bi Dakar la jógee woon waaw xëy na dana am yeneen détails yoo xam ne nag ñi ci gën a sës ñoo koy kii waaye Mohamed daal lii lu ko gën a moom kéemaan la yàlla buñ ko gisati. amiin na yàlla jégal ñu amiin kon mbokk yi dégg ngeen ko euh, kooku euh, kenn la ci ki nga xam ne mooy Jëwrin Njaay dëkk Sikilo euh, ci fi nga xam ne fi la accident bi amee mu nekk accident bu métti bu jéggi dayo mbokk yi ñu fàttali leen ne accident bi mu ngi amee fii ci Sikilo ci Kaffrine accident bi nag tey jii la am ci fajar gi lu toll ci fanweeri nit ak juróom-ñett ñoo ci ñàkk seen bakkan ci saas yi waaye lu toll ci téeméeri nit ak euh, juróom fukk ak ñett am ci ay blessé euh, yu euh, bañ rawal leen ci lalu hôpital yi kon mbokk yi daal lii daal mooy li nga xam ne moom moo fi am directement fii ci Sikilo am di Moustapha yaakaar naa dégg nga témoin